dal leen ak ci sen revue de presse people single bu bees tak bu DJ Awadi euh, ñu dippee ko euh, ci en exclusivité ci émission Morning King bu Fatim Hall ci lundi bi 24 euh, juillet Way bobu nak di annoncé album bu bees mu neex rek suñu auditeur ak internaute yi ñi déglu sa su nekk way bobu nak di annoncé album bu ali du tooñ ali du bandi ali du Nan, ali du mandi ko ci ali da yem place te du ali bëgg lu noy, ba nice ali Mo Diouf ak Ajuza, ñom nak ñoo bokku ci nominé bu Afrima Award cérémonie pour nak ñu ko amal feulé les États-Unis pour benn bu ñuy Dallas ci wéru octobre lu tolloog juróomi fan ak ñet ñom ñaar ñooñu nak ñoo fas nekkal fofu Sénégal Tu concours bobu nga xam dañ ci jàkkaarloog ak dëkk yi di nigeria Ghana Côte d'Ivoire Kamano ji ab wéykat guinéen site bii di AFP di ñu xamal rekk ni gannaaw ba ñu ko jàppee yoon nak bàyyi na ko teggi bépp daan bu mu tegoon ci kawam gannaaw ba abokaawam bi di Beyavo gi taxawee kem ci boobu lay miir. Zeynab suma Jammeh nekkoon première dame bu yaaya Jammeh fële ca Gambie. moom nag site bii di Seneweb jàpp na ni bëri na tànk lool ci dëkk bii di Sénégal ba tax ñu gën ko ràññee ca Almadi waaye ñu ngi koy séen ak kii di Samuel Sarr nekkoon ku sës lool ci yaaya Jammeh te nekkoon jëwrin bu yor wàllum energie fii ci Sénégal ak benn homme d'affaires bu ñuy wax Amady Samba site bii di Dakar Time nag mooy ni bi xibaar ni ñoom ñaar ñoo koy jàppale ndax mu mën a investir fii ci biir dëkk bi Selena Gomez nag ci samedi bi la doon fêté vingt-cinquième anniversaire moom ak ki mu bëgg ci xolam. waaye nag publier na ci Instagram ni amul nu mu kontaanewul ci ñi nga xamante ne nii ñoo koy teewee saa su nekk te it xolam sedd na lool ci ñoom. Emmanuel Macron mercredi bi naka la fas yéene teeru ki nga ne mooy Rihanna foofu ca Élysée site bi naka di sud ouest moom naka moo indi xibaar bi di xamle rek ni Rihanna moom dafa nekk en partenariat mondial bu éducation depuis atum 2016 woykat bi nag di originaire bu Barbade te it di woykatu RnB bi moo bind ci Twitter kii di président français bi ndax dina jàpp ci yooyu projet c'est une revue de presse people Malène Dior, bah, vendredi.